ba bi ñu bàyyantee jabar ji à chaque fois ñoo ngi dé déggante parce que man ak moom ñoo ko seq maanaam kaa est-ce que doo mayaat zaal sens nga jàpp ci ngir yàlla yonent bi parce que Zal ni mu ko gisee muy dund jamono bii nii nii boo ko mayoolee sens rek du baax parce que dalaa bëgg kon yow yaa ko war a mën a jàpp te góor am na situation yu muy jigéen bu mu bëgg rek moo ko si mën a génne naa si lu ne lu ne lu ne ba bi ba bi problème bi ba ñoom ñaar bi ñuy ne nekkaat kenn bokkuma si dara Zal new ma ki ne dee ñëwaat ki ne waxuma Zal daf may takkaat après par la suite laa ñëw ma xaw a mere ki ne nag si affaire boobu noonu parce que pourquoi man ma daan sonn ci mbir mi waxuma ci dara ñu euh, affaire bi am kenn boo xamante ne dara te man maa ngi am sonn naan ko doo mayaat daal sens léegi loolu am boo xamante dara loolu moo taxoon moom mu ñëw ci kër gi xam nga ma cëq ak moom ça va ça parce que man ak li si daan daj di sonal suma bopp pour mu ñëwaat ci kër gi mu dem ba moom Zal nekkaat te kii ne envoyé ma benn message ni ma Zal takkaan na ma loolu moo metti woon sama diggante ak moom moo tax. moo tax saa à chaque fois bu ñu ñëwee si kër gi man man moom ma def limite ak ñoom ça va ça parce que am na droit seq ñoom ça va ça va mais amul benn problème amul benn problème bu ma am ak ñoom. billahi wallahi taala peut-être so ñoom seen xel moo toll foofu noonu mais képp ki ma tuumaal lii jéggulu ma ko ko te bàyyi naa ko ak yàlla mais nag yow kenn amul sa fay billahi wallahi maa lay sant di la gërëm bu baax a baax ok merci. Doudou da